sama cofeel seet ko ci jaww ji ba saay tey jege nga ko nii te yëkkoog sa ñaari loxo sama mbëggeel wan na la ko fu ne ba tey kañu ànd teng bëggee ma jox ma sa loxo lan la loo xew mbaa jàmm dara dara dara escalier yi laa la bëggoon wax su ma yëg ci escalier yi damay teel sonn man daal xam naa war naa def sport. Doucouré waaw tu es trop bizarre waaw bizarre. Hmm? arrêté loolu dégg nga ah. il faut être naturel. naturel waaw ah, bizarre. ok baal ma am lu ma la laajte baal ma rek ma laaj la dara. Euh, daa am beneen Sylvia boo xam bu bokkul ak bi nga sëyal beneen Sylvia bokkul ak Sylvia bi nga sëyal da nga ko xam. benn Sylvia laa xam sama àdduna mooy sama jabar di sama xarit nekkoon sama xarit nekkoon sama ma ci guddi yu lëndëm andi ma ci bëccëg bu leer naññ ji ma ngor ji ma teraanga won ma mbëggeel bëgg ma ngir yàlla te yàlla rek tax man mii di borom këram tamit ma bëgg ko torop leen rek laay rëcc sama at na fu mu toll mooy li ma koy ñàkk li ma koy ñàkk parce que loolu mi ngi ni ci yoon bi li mu dellu France ak xol bu tàng jër loolu laay li may rëcc sama at c'est clair waaw loolu la damaa dégg rajo yi di ko wax nii rek ma ne xaaral ma laaj la ba xam rajo yi di wax laan da da demat bàmbaal nga xëy nga nga ngeen daan bàyyi la génn loolu rek la loolu kese la kese la du dara <laughs> du dara gis nga nu ma nekkee du dara <laughs> ku mu bokkal ndey ak baay lay siir siir mu nekkee ah luus na de luus na torop bokk ndey ak baay di sëy lii bëri na ci kër bëri na ci kër yoo xam ni bu nu gëstu woon bi ne ci biir kër gi ban wax leen li xew ci biir kër gi kër gi fa la jaare tas maa xalaat doon doon kër fu ne nga tukki fa dem dëkk boo dem am fa doom dëkk boo dem am fa doom doom yooyu mag dañewaat di sëy bari na lii dama ci waroon business sax lu mu am jël mën na ne dama koy wax Jojo mu yokkal ma sama salaire mën na ne information de lour la bi du ko wax mukk maa koy wax ma wax ko mu yokkal ma wa ilaa ma wax ko mu dàq ma ah. hmm. taawooy woy leen taaw wuy taawooy naa taaw wuy yaay jaxle taaw lay woo bàyyi jaxle taaw lay woo ginnaaw ndey ak baayoo taaway dogal dama ñëw sa kër sa kanamu yaay et tout dégg nga ne carrément sëyoo ak man buy sëy di am fit si ngay sëyal demal nga sëy ak moom tu n'as qu'à subir les conséquences. la ma ma de pour takk jabar nii ak maa yomb. démb ba ngeen di xiif yaak sa ndey ñëw naan amu leen lu ngeen lekk ma leen di dimbali ana kiñ la bëggoon a may sa genre ndey gi moo tax buñ ñëwee ne dañoo xiif xaj taxaw ne dafa xiif dimbaleel xaj bi ndax xaj ngay dimbale benn fan jox lekk trois ans du la fàtte sa genre ndey gi trois ans nga dundal leen benn fan ñu war la. Sira Sira. wax te waxoo ko Fatouche daana bu soo looy wax nii yow ah ak ku la wax loolu Fatis moo bon Fatis moo judd ci gëléem ndàmp ñi baam billaahi Fatis su ma xamoon ni bu juddoo nii lay mel keroog ba ma ko juree ci hôpital ba laa koy xoj ba mu dee moo xam lu bon te di ko wax moom lii mënoon na koo xam ba pare sax mu képp begam bi ban lañ koo wax ginnaaw yow rakkam nga te dugg dugg nga ci soso ba pare ndab li xajam na ba pare saf na suuf sap kon lu mu doyati soso moom Jojo da koo faale Jojo faalewu ko yow mii faalewu la ndax fii la Jojo taxaw ngeen wax say bu ne weng-wengeeral taxaw ak Jojo ni ko man eh, eh, eh, kii laa nopp nu mu tuddati firji laa nopp ah te rusoo ci dara loolu sax dama ko rekk nag ndekete firji moom moo ma kidnappé torturé ma delluwaat bàyyam ne damaa libéré noonu waaw yow lay wax nii nga toog ba tey di ma ko doog wax. xaw oh, ma ni ba tey yow Sira danga maa yëpp la danga maa miin yow ak li ma daj sa réer bi yëpp di xool ba xam kan moo la kidnappé ah Firji moo la kidnappé ba pare nga ne patta moom Sira loo ma yabee ah yow. léegi nag xam nga la moo ca des perte nga dix perte leste ak yow yow fit ji du la takk tey du la takk suba te Jojo ci boppam bana la complètement hmm. eh, ñàkk surtout yow ni ma la yaakaar non non non Fidy kañ lay génn ci sama famille bi rek te yàlla rek tax sonal na ma. mais grand jooy nag grand arrêtez ko s'il te plaît ah. je sais pas jooy ça dit à quoi grand pourquoi ngay jooy ah. Assane oui. sama doom ji ma doon wër. feeñ na alhamdulilahi rabbil alamin grand fan la feeñee ak foo ko gisee ak kan la asal sama doom bi Sylvia yàlla tudd Sylvia la ilaha illallah te moo ngi ci réew mi grand ça c'est une très nouvelle grand man li ma lay conseiller grand xamala la kooku teel koo jël teg ko sa wet miinal ko sa bopp lépp loo waroon def ci moom te defu ko ci moment bii def ko ci moom gaaw mu jege la ngeen am complicité moi je pense que loolu c'est une très bonne nouvelle et moom fan la ne. Assane moom Sylvia. Assane oui. Sylvia dellu na France. xam nga Jojo. mais Jojo bien sûr mooy sa doom bi. di c'est que ñoom ñaar ñëpp samay doom lañu Jojo mi sëye ak Sylvia ñoom ñëpp maa leen jur ah. mooy sëy ak Sylvia. Assane waaw waaw. waaw. il est au courant que ne Sylvia c'est Ha? Assane. oui. loolu xamu ko man ak yow ak yàlla kese moo ko xam. waaw. waaw. Mm-hmm. Oh. Oh. Oh, mais léegi Idrana xam nga ce qu'on va fexeel ba lii man ak yow ñu gas ko suul ko fii ñu toog Jojo bu mu mës a ne Sylvia c'est sa sœur suñ ci pare moom na toog France bu mu ñëw te nañu def lu tout tas sëy bi te ñun buñ ci feeñ loolu rek ay solution bi sant yàlla ba nga fi nekkee parce que man parfois damay toog di xalaat ci samay mbir mu jaaxal ma lool awma xarit awma àndandoo duggoo génnantewoo mooy man mii te loolu baaxul parce que ci yoon su ma amee lu ma naqari war naa am ko ma mën a toog di ko waxtaanee mm-hmm. jël lépp rek di ko englobé sama biir xol bi ça ne bu feesee day exploser aw ku ma waxal heureusement ba yow yaa ngi fi parfois ma ñëw temps en temps ñuy waxtaan may génn li nekk sama xol. Mm-hmm. je suis hors du commun normal xaw lan mooy sama problème. Jojo xaritu tey jii. du xarit rawatina àndandoo Jojo soo bëggee koo waxtaanal ñëwal ba fii ma waxtaan ak yow walla nga waxtaan ak Sylvia sa jabar moom laa na bëggoon a wax nekkatu fa dem na Sylvia gàtt na ay valisam ñibbi France tàgguwuma yëguma tinuma su ma ko wooyee du sax sone te neexuma après tout lu mu mënta demee sama jabar la su ma sañoon du ñibbee nii France su ma sañoon man ak moom may àndandoo dellu wala ma yóbbu ko ba aéroport akolaat ko fóon ko mu dem sama jabar la gënaluma nu mu demee nii gënaluma gënaluma mais santal yàlla santal yàlla comme que Sylvia génn ci sa dund alhamdulilah nga war a wax lu Sylvia lu mu la fi teg Sylvia ci kër gi tegul la naqar bu nekk Sylvia bu meree ma ngay toji télé Sylvia bu meree ma ngay toji kaas Sylvia lépp lu bon ci kër gi def na la ko lekkoon naa naanoo xiif nga mar nga ah dangaa stressé wu <laughs> kon kay yow Sylvia bu demee da war a sant tata dinaa sant parce que suñu borom lu mu teg jaamam rek da nga naan alhamdulilah waaye gën a lu ma ba ci ba ci dama koo bëgg xol du xeer yàpp la ak sidit tata Sylvia dama ko doxaan nopp ko takk ko bu doon sama soxna ma bëgg ko lool nag lu ñu mënta jote dama ko topp dama ko bëgg yaa ngi imaginer koo xam ne bëgg nga ko après mu dem yoonam wala ginnaaw nga nar koo ñàkk ni comme sax après nga ne man dina ma neex. après non du ma neex. nga dund sa dund fii dara ñoru fi ba ñu koy màcci. il faut nga ànd ak sa xel ak sa xalaat. daf ma jiwul loolu. ginnaaw dem na nag. ba nga rek la ma ji. wa après. waroo ko def dem na yoonam loo ci man xam nga la ma bëgg damaa bëgg nga dellu si waat sur yaa ngi dégg li ma la wax xam nga lu ma bëgg bàyyil ma waxtaan ak Sira waaw bàyyil ma waxtaan ak Sira. Sira xale bu ndaw la. munumaa ëpp fulla munumaa ëpp fayda. Thomas Sira naa def Sira ça va bien. mun nga sax waxtaan ak moom parce que deret la mun nga waxtaan ak moom mais. amul benn problème li nga bëgg a wax yëpp xam naa ko. waaw mais dafa am ay conditions nag ciy teg. mooy damay takk ñaari jabar ci benn tàkkusaan ñaar mën naa bu fekkee Sira nangu na ko baax na su ko nanguwul ay la yéwén nag ma xam lii la yàlla dogal daal sama dinaa waxtaan ak moom daal te lépp lu ma wax dinaa la ko wax te yaakaar naa ne Sira dina nangu de يا صفات مسمنا لا أدنا أدنا amuloo kóllëre kooka la kooka la kooka la négal daa bloqué négal daa bloqué. lan moo bloqué. sama fenêtre mu man fii laa soxla damaa soxla ay fenêtre. kii kan la. waaw la lii kañ la fi mooy yéen. mbedd ko yor boutique. waaw yow lii kañ la fi xew yow. Eh, fëgg fii sëne fii ubbi bu xanaa da ngay jaay fii euh, boutique ko mbagg. fii laa koy visité ba mu leer nga dugg dugg. arrêté nag de taxawal ma eh, eh, taxawal allez sa loxo fi mu toll. waa Rogaye yaa waay Samba ah. eh. nga dem sa mbaaru sànq leen nga dem sa mbaaru sànq leen. déedéet kay loo loo fii xaw loo. mën nga yor arme wala dara xew. c'est sûr. c'est sûr kay yow kay ginnaaw bi nga bi nga ajee aj xam nga fi moom lii moom mbarambaj yi boo ko laalee mbarambaj boo ko laalee ba ba laal lii soutien waa ci fi war a woon sotti ni ensi yëguma dara plaisir sécuriser mu bokk sécuriser kër gi moom raxaju ci biir dugal waaye suuraale ni bis dana jot dafa lu la neex yow palpe ma ndengeñ ma daana ma si bi fulari ajal sama zip bi waaye bis dana jot ma doon sa patron bu jigéen eh! dangay dugg wala dugg damay dugg waaw dugg métti ko liggéey séeraas moom xam naa yow laa njëkk a fees ci kër i waaye sama juróom téeméer benn lan mooy sa problème. yow awa man lan laa lay joxe loxo. Ah. lan la ah. awa lay def sama koñ. muy ma waxtaan bi du waxtaanu mbedd nan dugg sa biir kër. awa yow eh may feebaru dof de. Ah. yow il faut que ñu internet la non ça ne va pas euh, Adama histoire ma coowu dama laa soxla comme dugaloo ma sa kër li may wax mun naa la ko wax fii. awa gis nga làmmiñ mënut a lekk moromam te ñoru awa yow yaakaar nga ni yow li nga ma fi def yëpp dinaa la dugal sama kër nga may sunguf di ma reen da nga indaale ay saafara tey xam naa pëndëx bi nga indi moo tax saaj bi ndaw waaye nag daloo xoolal fi mu nii dama wow koŋŋ sax maa raw xeeru ngor histoire ma xoolal lii intérêt commun la du sama intérêt man kese de yaa ngi may dégg lenn nag laa lay wax bëgg la ak fonk la def la sama rakk moo tax ma jàkkaaraaw ji la wax lii non defal ndànk rek lenn laa la wax Sylvia dellu na Paris ñibbi na Jojo fase na ko yóbbu na ay bagaasam yëpp Jojo nag mu nga biir këram wéet jaaxle jommi te xam nga ni Jojo ñun ñoo mun ci moom dara kenn xamatul lu muy ndurool man information yi fu la la may fekk ñu naan ma mu ngi taxawaalu fii Jojo si restaurant yi lay lekkee Jojo mi ngi ci corniche taxaw amatul vie ndax daf noo ñàkk ma bëggoon nag ñu delluwaat biir këram toog riigu ànd fa laa doon bëgg dem nii ma ne nag waaye duma dem man kase ndax nag nit dangay gore lu mu metti metti lu ma la mus a def muñal nga ma ko daman gor laa bëggoon ñu ànd dem waxtaan ak moom jéem a toog gérer suñu palaas balaa bay di woy mbuus loolu laa am de li ma def du yëfu jullit. non non du yëfu jullit de naa fekk ngay def nii yow est-ce que amoo loo bokk ak Iblis aw fuus nga waaye de lenn laa bëgg nga xam bu dee Sylvia dafa dem man loolu di tëntu ko sama yoon nekku ci. waaw ça n'engage qu'elle quant à Jojo et son problème lijjantiwuma ko te benn affaire nag pour nga xam ko mun nga Jojo bu ñëwul ba sama biir kër sukkal ma raamal ma di ma ñaanal waaw pour ma dem sëy jiwaat ci kër gi suma ma leeree ni damay wujj ak yow xaru moomu ko gën a man mii waa awa man maa nooyuwul di wujja ak yow maa foowul di wujja ak yow capable coupable bon criminel mooy yow. man heureusement bi ma muccee ba nekk eh, nii di. xoolal doy nax yow baadoo la nga xam nga li ma la xamoo lu baax ku la man dama lay arranger ngay déranger comme loolu la baax na len nag nag laa lay wax man la ma la waxoon rek laa lay waxaat. jéegu pëng pëng laa gis nga su ma xasee bu dugg ba am place yëg nga ne kenn ma fa fekkaat yow su may toog ngay ñàkk sa place. awa kon noonu nga ko gisee. awa bon vent. na sa ngelaw nangu. tu vas le regretter. damaa defoon erreur de jeunesse ñoo fekk jigéen bu baax bu toog ci peggu ndeyam ma tooñ ko am ak moom doom li ma ci gën a metti sax mooy su ma demee nag ba sama ñaar ñaar lan sinon lan waaye koo bëgg a takk noonu ko da ngaa rattaxle lan laa rattaxle ah yow gis nga problème bi nekk sa bopp bi nii pour man sax mënu koo lijjanti waxtaan la sa jegenaay boo tëddee xëy di ko lijjanti sinon la kan moo rattaxle koo bëgg a takk bu ko def femme naa ko da ngaa rattaxle sinon ñaar yooyu sa ñaar la de man xaw ma luy sinon ñaar. eh Tické je vous en nag. un wala ah ah ah. ñaar la ñaari femme da nga am aw am ñaar bu ma takk wala lu mu demee <laughs> xam nga lan man maa ngi ñibbi siinoo ñaar <laughs> siinoo ñaar ñaari lan la ñaari lan wéetoo woo ko boo waxu say problème mag mu toog toogaayam heure de jeunesse nga def di laay xoolal li ma jot a xamagum noonu doomu nii nii nii nii bañ a la egg rek. tike arrêté tike. heure de jeunesse ngeen war a bàyyi. mais je n'ai marre. waaw ku la maaroo boo maaree naa ndox dama la maaroo si non ñaar su ma tëddee nga xam ne maa mën a réfléchir yow koo wóolu noo koy takkee ma ma fekk ku jom ma toog palaasam ma mag moom doom sama yoon ci. ci bunt mu toog waxtaan nañu ma moom nee na lépp loo xamante ne da koo jàppoon teg na lépp ci suuf bàyyi na lépp nee dina la takk def la princesse yóbbu la biir këram nga di fa daagu eh, waaye nag dafa am ay conditions yu ma tegal dafa am benn xale bu jigéen bu mu njëkk a waxal ba pare nee na kooku lay takk ak yow boole leen ñaar benn jour ngeen sëy si. mais yow takk ñaari nit même jour yow foo ko déggee. Ah, loolu war na góor di. Ah. eh dangaa xamul boo xamul doo waxi nii gis nga góor ñi yàlla dogal na leen ñu am ñeenti bant ak tegoo bant tegoo bant ku mu dal nga génn sa moroom dugg. yàlla jagleel na la loolu. yow dañ cee ànd noonu. ah lu tee duma ci ñaari jabar même jour. lu tee duma ci ànd maa ci ànd pire. léegi man bu ma takkoon man ak soxna soosu benn jour léegi man lan laay doon ah wala ñaare. loolu nag moom fi mu toll nii moom mënuma la cee tontu benn baat ndax alxuraan moom yàlla def na jànguma ko boo ko bëggee xam xam nga nag ngay def laaj ko ustaas yi wala nga dem ba ci ustaas Moodu Fall nga laaj ko ko yaa may dégg. yow moom daa mel ni ànd ka ci nii de. xoolal loolu lépp dafay gudd xam nga lu ma lay yëgal yow duggal rek yow na la Jojo takk rek nga dem daagu ca biir këram maa maay sa ndey maa lay gunge jàppale la amul tiit amul ragal yaa ngi muy dégg. ku sañ bañ moom sañ nangu. wuy ma yow duggal rek yow dégg jabar benn jour loolu dama ko mos a dégg fenn man